ak li ko wër ñi ko doon xaar bay booba. waaw boobu boo ko jëlee daanu de. kan ne nii ngoon Simio mooy war numéro 11 bi. déet déet loolu amul de. mooy war numéro 11. Maxime Guillon. war 5 bi. <laughs> yow Maxime Guillon ñaar tàggee dam perte nga ñàkk nga. dawul de. kooku day daw de boo ko toppee waxuma la ordre waaye désordre la la jëme te doo faye ma ne damay fayeeku bisu tey bi de kooku waxuma la dara bu nu ñaar ñaari tànk yi sax day arrivé xaw ma ordre nga jëm xaw ma désordre waaye fii ne waxuma la ordre de mais yow lu jege ordre sax doo ko jege doo fayeeku ko nga de yow eh, nga jéem a xool leneen dugal ndax loolu moom ñàkk nga man yow yaa may perte loo xam yow booy wax ak yow mu ngi bugg jot yow waxuma loolu laa wax lan la yow kam nga fii sax nga toog nii du sa place. ah fii nga ñëw nii du sa place. may joué may joué nga am du sa place dama lay wax rek fii du sa place. yow ñaata at sax am. man ah man ay 17 ans et quelque lan la. 17 ans et quelque ngay ñëw naan dangay GPM. lan la kam nga ne xale bu fekkee moins de 18 ans waroo ñëw fii nii boo amul 18 ans waroo ñëw di ay PM ak yooyu. Hmm? may wax nga ñëw fii yow di tey dinaa ko wax sa budget. damay dem ci sa bàjjen ma ko yow dangay ñëw di GPM. baay boobu nootu yoole. dinaa dem ci sa bàjjen ne ko booy bi day ñëw fale suñu garan place bi di GPM. déet bàyyi bàyyi ma de. bàyyi boobu am benn gañ bu 500. gañ bu 500. ma ne a gañ. waaw. c'est bien. yow xam nga lu gaaw ak lu gaawul xam nga luy ñëw ak lu ñëwul. waaw baal ma bu ah. dee loolu moom ma la wax da naqari fas bi bu dee loolu. xoolal mi ah eh ngaree eh. ñëw leen xoolal ñuy ni ko ni ay xale yu ndaw. père la ma sa la père lan man yow waxuma loolu yow góor nga walla jigéen nga yow. Ah? Ah? jigéen la ah lan ngeen di wut fii ci Paris bi ah. xaalis bu moom la ay xale yi ndaw yoo xam ne wóor na ma ne amagoo leen 18 ans leen ne fii moyen de 18 du fi dugg ngeen ñëw ay xale yi ndaw naa da ngeen di jee ay Paris foot ah. ah tey kay waxuma lo gis nga ni ngeen koy waxee yéen kale yi du yoole yoole ngeen di wax tey moom dinaa leen yoole seen bàjjen man tey kay damay dem seen bàjjen wax tey kay tey moom tey seen bàjjen dina leen door ba ngeen dugg ngay wax ma bisimilah ah. waaw bu ko topp léegi man dinaa waxtaan ak ñoom. déedéet kii eh, garab eh ñoo ñibbi nii ñoom. Eh, eh, ah. yow lan ngay ñamat ñu ko ah kay si seen bàjjeel la. ma ne ñëw leen yéen kay yéen kay fu ma jaar seen bàjjeel la ñëw leen ma ne seen. ba jàpp ci eh ba eh bàyyi woo yow doo ci personne duñu fi jullit de seen bu yaa ngi sol ci xar ko ba mu yegg sa romb sa pooj boo sëggee ñu gis sa awram loolu rafetul doomu jullit du ko def te seen bu weeru koor nga nekk même bu dul weeru koor dangaa war a sol sol bu yiw doomu jullit day sol sol bu yiw rawatina jigéen waaye xam nga lee nga sol démb romb xam ngay loolu rafetul yiw te ngeen aw bu suturaal seen awra yi jigéen day muur ay cëram. mais Ndiaga loolu dafa xew ku nekk sa jamono day fi daal li nga tolloo rek moom ngay def. ah li nga tolloo moom la ma ko solu sax nit ñi duñu ma xool. fël-fëlaale doog laasoo xar ko nii fii de laa yam ngay wax ah, ah, xanaa xamoo ne yow jigéen mun na solu ba rafet te du wane awraam mën nga solu ba jekk mu rafet yiw teg te doo wane say cër waaye woo sol loo xam ne li ñu ko xara xara xar da nga ci gis koo xam ne bu dara ngoddee du mën a sëgg pour for hmm. te nag yaay si xamul pour ñoom yaakaar na ni boo xaree solo baa solo jiim ba mu dagg benn góor du la bëgg. Hmm? te contraire bi la gis nga jigéen yàlla moo ko jëkk si hmm. gis nga say cër da nga di sol lu jot bu ko defee ku baax ñëw si kër ndey takk la yóbbu la waaye fii yaa ngi sol lu bon ah ma doo gis ku la bëgg xanaa nga mel ni ku mel ci gis. da ngay gis xale góor yi booy waxtaan ak moom. nga eh, leen waaye bu ma leen joxoon may par exemple jabar euh, koo xam ne ki mini lay sol ak ay fant bu ñu fant ba ca kaw maanaam ko vulgaire daal. Hmm? du ak koo xam ne ki day sol bu yiw taxaw kan ngay takk daraan may waaye lu may dee ko vulgaire. Hmm? ki ma bëgg mu jur samay doom ëllëg kooku lay takk mooy ki sol lu yiw li. waaw parce que jabar duñ koy tànn. mooy góor di war a baax. mooy jabar di war a di ma waas ay baax. ay baax waaw ay yëg war a leen baax yëg ngeen li ngeen mais kay silib ndax démb la nga doon wane moom jiituloo baax sax ci biir silib. te nag xoolal buy leen jógee sol bu yiwadi ñu xar ko ba ca kaw bu seen dara waddee sax doo leen mën a sëgg far ko ngeen ne da ngeen di jaay kañ ngeen koy jël yow góor bu fekkente ne li nga koy war a nëbb chaque jour mi ngi jàkkaarloo moom lu muy takke def leen mu yiw na rafet say nëbb mën naa gën a sama soxla nga di gën a sol lu gën a yiw waaw. lay waxal sa jàmm la de. yow eh waaye lim doon. lan la yow di lan la yow boobu lu muy kurkur sama waa kër yi li ne ñu ay nag yow ñu ay nit lañ waaw. maa ne ñii bu amee li leen jël. kii bee mi rek lay see kii. bee mi. ñaar ñii waxuma daal ñu ñëw naa dañuy see pari foot. pari foot ay xale yu ndaw. fan lañ ko teg. ñëw ñaata nga. 17 ans. yow ñëw LONASE waxu leen képp koo xam ne kii dangay ngay joué LONASE na nga am 18 ans képp ko joué ci produit LONASE muy pari foot di PMU na nga am 18 ans mais noo képp koo xam ne kii moins de 18 ans amoo droit joué PMU wala amoo droit joué pari foot terewuñ leen pari foot yow xuja yow jaar da nga doon joué foot man day jombi naa chaque jour mu dàq jaaykat yi yi nga xam ne dañuy jaay xale yi amagul 18 ans moins de 18 ans ñu leen di jaay pari foot LONASE li mu ci dàq kenn xamul nu mu toll nee nañ leen ba tey ku amul 18 ans bul jouer pari foot yoon ak boobu jërëjëf. ma ne kii nag moo ci gën a dëgër bopp nag borom bopp wootu bi mel ni góor. ba de même moom itam dafa doon jouer PMI. da doon jouer PMI. Ah, da waaye kii mag la. kii mag la am na droit jouer. nag xaalis bu mu soxla moom tamit moom lañ soxla. ah da ngaa am soxla xaalis. gis nga yaay. yaay ñii war ngaa jóg si ñoom de. yaay sama bébé kaay yee waaw mu bébé kat mu ne xanaa. xaalis bu ñu soxla moom moom lañ soxla. ngañ ngañ ngañ ngañ ngañ ngañ di nga jox di nga jox bari di nga ut jox bari di nga jox bari di nga jox bari foo dem yow eh di nga jox bari di nga di nga jox bari. waa jox looy jooy yow looy jooy. dama koy anticiper. anticiper yow loolu ko mën a ngay jooy. loolu laa xam moo ma ne naa ko jooy benn yoon.